ñu ngi am mbégte dalal euh, Abdoulaye Diagne coordonnateur national bu mouvement des élèves et étudiants républicains di maire ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. merci beaucoup Fatou euh, maa gën am am mbégte euh, répondre seen invitation. Mm-hmm. alors ñu tàmbali ak li xew semaine ba la ñu génn wax nañu ni jàppante yu métti amoon a diggante ay membre maire ak COJER si ndaje moo xam ni lañ fa waroon waxtaanee mooy naka la ñuy def ba indi tontu li gannaaw manifestation bu bu yeewi askan wi ndax mun nga ñu ñëwaatal ci li xew keroog dëgg non pour préciser d' abord euh, keroog li xew. Mm. amul benn benn benn benn incident wala benn bagar bu am entre. mère ak xeex bu métti am na nag gis nañu euh, euh, image yi. non attendez mm. man dama lay wax li nga xam ne moo am c' est à dire presse bi nu ñuy waxee. Mm. ak ñun acteurs yi nga xam ne ñoo fa nekkoon xam nañ exactement nu mu nu mu demee. parce que yéen nag maa ngi jégalu ci kaddu bi da ngeen di jël benn affaire bu ndaw rek. taawi ko taawi ko ba mel ni mais gis nañu image ñaar ñuy xeex. mais euh, je pense aujourd'hui ce qui était la réalité. mooy euh, jour manifestation boobu euh, parce que Yewwi Askan Wi dafa déposer sa demande de marche mm. le préfet les a accordés donc ñun aussi euh, comme parfois gars yi ñuy wax ne la jeunesse la jeunesse la jeunesse euh, on s'est mobiliser ñun ñëpp muy maire muy cogère muy yeneen structures yi ñu jë daje daje fi nga xam ne mooy suñu permanence mooy suñu kër politique ñu daje fa pour montrer aussi ñëpp ne président Macky Sall jeunesse am taxaw na jeunesse am pare nañ pour défendre ko ak lu mu laaj aussi dinañ ko def. donc fu ay ndaw daje nag aussi parfois ak engagement bi nga xam ne gars yi am nañ ko vis-à-vis du président de la république mënta am ña mënta ñàkk buuxante mais amul benn dualité bu am amul benn incident boo xam ne am na ko wala ay ay xëccoo yuy am ci diggante maire léegi xeex bi ñu gis lan la woon parce que la réalité est que aujourd'hui entre la COJER et le maire ñun benn lañ parce que ñun ay ndaw lañ ay ndawu président Macky Sall la ku nekk ci ñun président daa am confiance bu mu bu mu teg ci sa loxo donc suñu mission du xeexante suñu biir su benn mission la ñu am booloo doon benn pour jàmbarloog opposition bi nga xam ne moo nekk suñu suñu kanam mais nag fu ay ndaw daje mën ta ñàkk ay buuxante buuxante yooyu nag mën nañ koo jël taawi ko mu mel ni ay frustration la wala mu mel ni ay xeex la wala ay ñu reyante seen biir la fekk na la la lañ cay wax yëpp dara amu ci li ma la mën a wax mooy objectif bi nga xam ne moo taxoon ñu daje permanence def nañ ko te ñi ko war a gis gis nañ ko ñi ko war a xam aussi xam nañ ko amul wujjee diggante ñaari kuréel yi non mënut a am wujjee yow kii Sow mënta am wujje xam nga lu tax mënta am wujje parce que ku nekk ci ñun fi nga nekk notre chef de parti moo la fa teg kon wujje mënta am ku nekk da ngaa mën a nekk ci sa mission di ko doxal ni la ko président santaane donc suñu jógee ci loolu aussi mu am loo xam ne ay action commune la dañ ko war a def ñun dañoo war a booloo defandoo ko pour réussir président Macky Sall te lépp lu ñuy def aussi ku nekk ci ñun da ngay bàyyi sa bopp parce que sama bopp wala bopp Moussa wala Kogérof wala maire existé wut xam nga lu existé l' alliance pour la république la jeunesse de Benno Bokk Yaakaar la jeunesse de la majorité présidentielle pour autour du président de la république pour que objectif bi nga xam ne moom la am ci élection législative yi ñu mën ko ko may te président daf ñoo defal loo xam ne wujjee war ta mën a am. Mm. président daf ñoo defal loo xam ne xeexoo war ta war a mën a am ci jeunesse bi parce que dans l'histoire politique du Sénégal benn formation politique. muy benn benn benn benn parti politique deful wala aucun dirigeant deful li nga xam ne président def na ko ci jeunesse sam ci élection législative yi gis ngeen ci investiture yi mhm. y a trop de jeunes au moins on peut compter vingtaine de jeunes yoo xam ne président da leen da leen investir ci liste nationale bi mais aussi ci liste département yi et loolu yaakaar naa ne tey su ngeen xoolee yeneen coalition yi amut mais loolu day aussi encore une fois montrer li nga xam ne moom la président waxoon bu muy campagne en 2019 je vais réserver exclusivement ce mandat à la jeunesse loolu la waxoon. waaye est-ce que jeunesse mi gis nañ seen bopp est que du jeunesse ñoo gis seen bopp ci affaire yi. Euh, regardez sur les listes constatez amul jeunesse su APR moo ci gis boppam wala leneen le président il ne gère pas l'APR il gère une coalition et depuis 2012 gis ngeen nu muy gérer la coalition il y a jamais eu de frustration amul leneen et d'ailleurs d'ailleurs li ma lay mën a wax. tax na bi ñuy dem ci investiture bi dañ ko jox carte blanche tous les partis politiques de la coalition dañ ko jox carte blanche. ne ko loo def baax na. non loo def baax na xam nga question de lan la parce que question de confiance la parce que le président da leen ne woon on va gagner ensemble on va gouverner ensemble et depuis on gouverne ensemble et loolu je pense que leer na ñëpp. loolu moo tax aussi dans l'histoire politique du Sénégal vous n'avez jamais vu une coalition qui a autant duré que la coalition Benno Bokk Yaakaar. ñu ñëwaat ci seen ndaje keroog bi lan ngeen naroon def ak finalement lan ngeen tënkatee. non lu ñu waroon a def c'est c'est c'était une mobilisation une mobilisation au sein de notre permanence dans la mesure où gis nañ ne euh, dans toutes les manifestations de l'opposition à tout moment am na lu ñu ci lu ñuy wax parce que gis nga fi un leader de l'opposition qui a appelé à l'insurrection à, à deux jours de la venue du khalife général euh, de Touba du khalife général des Mourides euh, Dakar mu woote insurrection dem Ziguinchor toog foofu woote lu mu wax li mu wax ba pare aussi di convoyer euh, de de des personnes yoo xam ne euh, en réalité seen adduna yëpp mooy lan la ñuy def ba taal réew mi donc ñun aussi du ñu toog di seetaan parce que nag euh, réew mi nag président Macky Sall moom lañ ko dënk le président de la république dafa am benni objectif mooy aar kaaraange sénégalais yi fexe ba sénégalais bu ngeen bu nekk ak foo mën a nekk soo buggee jóg doxi sa soxla nga doxi ko dara du la ci fekk donc am na foo xam ne suñ fi jógee nag ba ay yeneen sénégalais gisuñ leneen lu dul tar réew mi gisuñ leen lu dul jiital seen intérêt bopp ndax ay puissance yoo xam ne dañoo nekk ci ginnaaw réew mi di leen financer pour ñu tar réew mi ñun aussi war nañoo jóg. taxaw doon benn kan la ñu financé mais euh, Ousmane Sonko lu muy def yëpp ay financement kan moo ko financé. ah xam ngeen ko. ah xamuñu ko ah, yéen am ngeen ay preuve ne dañ ko financé. des puissances étrangères yu ci nekk et pourtant tey mu ngi woote xeex pourtant mu ngi woote insurrection mais demandez à Sonko. ana doomam bi nekk dans une université d'excellence au Maroc est-ce que kooku day ñëw ci mobilisation bi léegi ñu bëgg a jël ay jeunes yoo xam ne tey ay euh, sénégalais lañ euh, yaakaaruñ dara seen waajur ñoom lañ yaakaar ñu bëgg leen a teg ci kanam di leen reyloo booy woote insurrection wala booy woote violence dangay jël sa famille jiital leen ci violence bi mais di jël ay jeunes di leen utiliser ainsi de et heureusement aujourd'hui la jeunesse est consciente de telle sorte ko lu mu xalaat lu mu bëgg mënatu koo am gis ngeen mobilisation bi keroog. la ñu waxoon lan lañ laajoon deux cent mille personnes la waxoon ne moom mooy ñëw malgré leur mobilisation nationale mënuñoo am sax ñaari junni nit. yow compter nga nit ñi ba xam nañ toll. mais mënuñoo am ñaari junni nit yow gisal nga ko sa bopp. da ngaa xeeb mbooloo keroog mën nga koo compter. da ngaa xeeb mbooloo keroog et ñoom mobilisation boobu ci département Sénégal yëpp lañ jëlee ay nit indi leen Ndakaaru ñaata bus ngeen gis ñu dugg si biir Ndakaaru. léegi yéen ngeen naroon def keroog. lu ñu naroon a def mooy seen daje bi ko waraloon. non c'est très simple. Hmm. suñ dëkkoon ne ñu dal seen kaw. Ah oui. da ngeen daroon wàcc fekk leen si mbedd mi. mu jeex tak kon yoroon ngeen ay ngànnaay ak yëpp. duma ci dugg mais suñu wàccoon ñu dal seen kaw. ah kon yéen tamit fitna bi yéen a si bokk yem di. fekkee da ngeen di ñaawlu ñoom li def te yéen ngeen nar a fekki leen si fitna. nu ñu mën a def. Ah. pour aar kaaraange sénégalais pour permettre sénégalais bu nekk doxi sa soxla. Hmm. dem dikk xëy lijjanti sa dépense ñibbi sa kër ci jàmm ak salaam ñun dinañ ko def. ak lu mu mën a laaj. ak lu mu mën a laaj. rayante sax dàqu leen ko. sénégalais ëppal nañu loolu. mais li ngay wax nii garaaw na de kon yéen beneen manifestation su amee mun nañu xaar lu nekk. saa yu jógee daal ñoom ñu ngi waat le 17 sax nee dañuy defaat. mais daal xam nga lan hmm. kenn terewu leen ñu woote. kenn terewu leen ñu def marché mais marché pacifique dem place de l'Obélisque wax li ñu war a wax ku nekk ñibbi war sa kër. buñ defee leneen def leneen. Hmm. dinañ dal seen kaw. ah kon réew mi ngi ci xottu gerte di. suñ taalee këru nit ñu taal seen kër. ah maa la wax loolu. ah kon naka yaboo tiit. jërul tiit parce que su nekkee ne kaaraange sénégalais ñun dañ ñu koo jaral. lu ñuy def nii defuñu ko pour suñu bopp dañ koy def pour kaaraange sénégalais yi. mais yéen réew mi ñuy wax ne dal moo ñu jig ak yooyu ngeen na leen fekki du ngeen bàyyi takk der yi régler loolu mission force de l'ordre la quand même. Euh, xam nga li ma la mën a wax. Hmm. am na loo xam ne suñ fa yegee. Mm. nekkatul force de l'ordre mm. nekkatul police nekkatul gendarmerie nekkatul armée question de citoyen entre citoyen la parce que dafa am réew mi ñaari pàcc ñi bëgg réew mi ak ñi bëggul réew mi bëgg a dund ci kaw réew mi ñaar yoon ñoo am ñi bëgg réew mi nag dinañ jóg fexe ba réew mi am jàmm ba sénégalais bu nekk di dem di dikk ci jàmm ak salaam ñun côté boobu lañ nekk ñi nga xam ne bëgguñu réew mi nag te bugg a dund ci kaw réew mi bëgg leen a indil fitna bëgg a yàq seen bien yi mais mais mais mais li gën a garaaw da ngay gis sénégalais boo xam ne dafa góor góorlu ci liggéeyam def perem jënd otom di ko fay war koo fay ay at nga génn rek ñu sànni ci xeer wala ñu taal ko te xamoo sénégalais boobu nan la def ba góor góorlu ba am loolu. léegi yéen loolu ngeen ci mën xamoo sénégalais boobu. Ah. nan la def tey ba def pere bancaire ba dem ba tabax këram dëkk ca ñu ñëw rek ci benn bés rek benn ndaje kenn jóge fële rek taal kër googu xam ngeen loolu lu mu lu àq boobu lu ci ne loolu nag waruñ koo bàyyi loolu duñ ci xaar gendarmerie duñ ci xaar police lañ ca mën a faj ak lañ ca mën a taxaw ba sénégalais yu am jam mun a aar seen kaaraange mën a aar seen bien yi dinañ ko def waa baax na léegi ñu wax ci législative yi di ñëw bokk nga si ñi ñu investir ci liste nationale bi wante yi ñoom nee nañu boo moytuwul li ngeen di am du bëri ndax ñoom cohabitation fi mu ne moom la ñuy wax te te ko ci suuf ndajeem keroog bi yaa ngi wax ne bëri ñu wante eh, ku gis mbooloo mi tamit xam ne yi mobilisé na boo ko dollee ci percée bi yi def ci législative yi est-ce que yaakaaroon ni nag xëy na war ngeen xoolaat yéen tam seen ay kii. Euh, li ma la mën wax ci côté boobu ci élection législative yi ñu jëm man d'abord. Euh, dama ci gërëm le président de la république parce que euh, lu mu def defal ñu ko ñun jeunesse bi yëpp jeunesse bu Benno Bokk Yaakaar dañ ko ciy sant di ko gërëm e loolu encore une fois dafa am lu mu waxoon bu muy campagne 2019 mu ne mandat bi mandat jeunesse bi la bu mu ñëwee ba léegi depuis 2019 wone na ko ci côté formation wone na ko ci côté emploi wone na ko ci côté yëpp donc même situation bi ñuy dund actuellement une situation extrêmement euh, difficile en termes économiques gis ngeen jéego yi nga xam ne le président de la république def na ko tey dama lay jëlal benn exemple rek les États-Unis d'Amérique bi nga xam ne mooy le premier pays producteur de pétrole tey soo demee foofu le litre d'essence c'est à un à deux cents francs aujourd'hui nous sommes à à huit cent quatre-vingt-dix au Sénégal donc loolu day wone président de la République euh, euh, yëg-yëg ak amour bi nga xam ne am na ko ci Sénégalais de telle sorte que il se bat au quotidien pour attenuer la souffrance des sénégalais. loolu nag loolu dafa am solo. Mm. Euh, ma lay wax ne aussi sénégalais xam nañ xam nañ li xew. Euh, Benno Bokk Yaakaar élection bi ñu fi mus a organiser depuis 2012 ba léegi. dañ ko gagné majoritairement. fi ñu jëm nag wax nañ leen bàyyi ko wax ci mais sénégalais yi xam nañ ñun xam nañ et le jour du 31 juillet 2022. di ngeen xam ne Benno Bokk Yaakaar est largement majoritaire dans toute l'étendue du territoire. bi nga gisee mbooloo keroog bi mbooloo moomu dama laa wax ne man sama ba personnellement personnellement mm. personnellement wax naa la li ma wax nee naa la soo leen compté motuñu ñaari junni nit mm. ñoom au contraire ñoom ñoo tiit am déception parce que lu ñu yaakaaroon ak li ñu déception te place de l'obélisque fees ñoom seen côté la tiitaangi su amee seen côté la parce que lu ñuy yaakaaroon ak li am du benn donc loolu nag réseaux sociaux yi dañ leen di nax dañuy gis ne jàpp ne li nekk ci réseaux sociaux yi moo nekk si le terrain mais la réalité en est autre donc il faudrait que ñu xam loolu et ma lay wax nii fii tey le jour du 31 31 juillet 2022 di nga ma waxaat ne ah li ma waxoon de moo am parce que li nekk ci biir kër yi li nekk ci gox goxaat yi ak li ñuy gis ci réseaux sociaux yi du benn lu uti la parce que sénégalais yi ah. xam nañ kan moo leen jëriñ xam nañ kañ mooy liggéey pour seen njëriñ xam na kan moo liggéeyul pour seen njëriñ d'accord loolu dinañ ma loolu moo fi nekkal nekk di liggéey au quotidien pour les sénégalais. d' accord et que loolu sénégalais xam nañu. dinañ si waxaat le 31 juillet alors ñu des ci réseaux sociaux yi am na ku ci doon nekk di saaga président Macky Sall euh, façon saaga bu nekk mu dem Paris daal di koy recevoir ñu bëri si militants yi merci wone ko itam ci réseaux sociaux yi Khaliphone Sall dajeeg président Macky Sall yow loo ciy xalaat Ablaye Diagne. Euh, li ma mën a wax sama boobu wax ko militants yi mooy président Macky Sall dafa dañ koo fal mu nekk le président de tous les sénégalais. le président Macky aussi am benn pouvoir discrétionnaire am euh, nekkul militant mooy définir wala sénégalais ñooy définir le le le l' agenda d' audience président Macky président mooy xam ki mu soxla ak nu mu ko soxla soit mu woo téléphone soit mu bindi la soit mu recevoir la ñetti ñooñu ñoo am te président ci loolu nag yaakaar naa ne pouvoir discrétionnaire am la ak te Sénégal le président war naa mun a recevoir. sénégalais bu nekk parce que nag sénégalais yëpp la jiite. ba ci ki kay saaga. 17 million de sénégalais la jiite président xamul ku farak moom ku farat ak moom. mais parce que daf ci am ñoo xam ne ñoo ngi far ak moom mënuñu ko gis mu dem ba foofu recevoir koo xam ne ci saaga ko la dëkk loolu tamit. Euh, ñoom ñu bëri comprendre ñu ko. li ma bëgg a wax aussi c'est dafa am solo te il faut que ñu wante euh, muy sama mbopp muy militant yi ku nekk xam exactement. ko président de la république soo ko bëggee jàppale aussi yow da ngay xam li nga xam ne moom nga moom xam li nga xam ne moom moo ko moom ku nekk su yemee ci li nga moom xam aussi ci lu ñu bokk yaakaar naa ne dinañ noppalu lenn nag recevoir na am na ñum ci neex am na ñum ca neexut la ma war na mën a wax les militants ak sympathisants yi muy ci biir APR muy ci coalition bi euh, muy tous les sénégalais que président de la république war naa mën a recevoir bépp sénégalais su ko temps mayee mais suñ jógee ci loolu aussi li gën a am solo tey mooy ñun ñëpp nañu mànkoo doon benn laxasaayu pour permettre président de la république mu am majorité ci élection yi ñu jëm donc loolu mooy mot d'ordre bi et loolu laay lancé suñu camarades yi et soo gisee niveau de maturité acquise bi nga xam ne moo nekk au sein de la coalition dañ ça montre encore une fois que nit yi pare nañ laxasaayu nañ pour jàppale président ak foo mën a nekk ci bépp boor boo mën a nekk. mer nañu itam ci investiture yi. man de gisuma ko nañu mer de. gisuma ko dégguma ko. Hmm. gisuma ko dégguma ko waaw. kenn merul daal ci Benno ci APR yëpp. même suñu amee ñoo xam ne xam nga xam nga xam nga mer. dafa am ñaari mer. ñàkk gis seen bopp ci investiture yi. mais xam nga dafa am ñaari meer wala ñaari ñàkk gis sa bopp lenn la. soit nga mer banque sa loxo. Hmm. mais mën ngaa am lu la naqari ci mbir aussi te loolu tax nga gën a même yokku jom yokku sa laxasaay pour gën a am détermination ci liggéey boobu même su amee ñoo xam ne tey euh, peut-être gisuñu seen bopp mais ci li ma leen gis ñuy def ci terrain bi mm. tey lañ gën a pare pour jàppale président Macky Sall te lool moo am solo jërëjëf Ablaye Diagne coordonnateur national maire amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey jërëjëf maa leen di leen gërëm